aca abit mu ngi waaj a sifflé wajah telepon a ngi wër téléphone de arbitre mu ngi waaj a sifflé Ngagne wakal. a ngi wër téléphone xanaa aca final final poids lourd fi ci Desa di diggante Ngagne Sène ak Pape Ngagne Sossokh démb ñoom ñaar wat finalu Fimela te ñu ñëwaat fii finalu wat. ndeysaan lundi 5 Desa 2024 di ziar sama grand Landing Sarr borom Touba ko dama ziar di ko bëggee Mansour production le moo grand Sénégal maa koy ziar di ko kontaane ndeysaan di ziar chef li borom Mbour borom Njaareer grand Souleymane li koy ziar di ko bëggee dama fàtte sa doom ndey grand Assane grand Assane Fagnane doom bi li koy ziar di ko ndeysaan di ziar sama cameraman Sampa waaye sama abonné yi waa Zambro TV 100 pour cent Njom maa ngi leen di bëggee di leen ziar ku ci abonné gul abonné laal ko notification bi Papo Ngane Sossokh ngañ jël tànku Papo Ngane ngañ jël tànku Papo Ngane ngañ ak Papo Ngane eh ngañ eh. seen Papo ngañ seen ak Papo ngañ seen Papo ngañ seen Papo Papungan gan Papungan Gansel. Papungan Gansel. Gansel Papungan. Hey, hey, Papungan Gansel. Hey, Papungan Gansel. Gansel Papungan. Hey, Papungan Gansel. Quelle finale. Les Sandisiak sama apal marang. li ko jëlee Ngouroumbane Nguéthie Diakhanok Djifer Ngallou Diakhanok Ngagne Sène ak yar na de Ngagne Sène dina def avertissement Ngagne Sène Ngagne Sène Papo Ngane aca arbitre sifle waat na diggante Pape Ngor Soosu ak Ngagne Sène Ngagne Sène jël na avertissement Ngagne Sène jël na avertissement di ziar docteur Julio Souleymane Diatta sama grand bu maa ngi koy ziar di ko bëggee waaye Fallou borom Ndiaye ges ne maa ngi koy bëggee di ko kontaane Ngagne Sène Pape Ngor Soosu final poids lourd di Fatou Ngagne Sossokh Ngagne Sène Fatou Ngagne Sossokh Ngagne Sène Sossokh Ngagne Sène Fatou Ngagne Sossokh Ngagne Sène बाबू का सो सौ से गोसी का नाम लग ले वाह वाह समझना से बाबा डिपी एस वाइन मांगो इसे आगे को waaye sama grand fa lang sa bu ko Espagne maa ngi koy bëggee di Soso ak Papa Ngane Ngagne sen Papa Ngane Ngagne Sène Papa Ngane Ngagne Sène quel final Papa Ngane jël tànku Ngagne Sène Papa Ngane jël tànku Ngagne Sène Papa Ngane jël tànku Ngagne Sène Papa Ngane jël tànku Ngagne Sène aca arbitre ba ta sifflé diggante Pape Ngane Sokh ak Ngagne Sène mu demee gis ngeen ko waaw waaw affaire bi dafa jaxasoo instant yi gars yi defaraat nañ ko aca abi sifflé na ñu leen di fàttali ne Ngagne Sène moom am na benn avertissement waaye Pape amagul dara

gañ seen Papa Kan Soosu ma téléphone yi bone bu jeexee jàmm ci ni kenn waxul gaay dafa mel ni dañoo Papongaan Sossokh Ngagne Sène fii lay xewee Diofior Thiatou Loum moom Mbaye Loum day ke refe ci lor de te refe ci wala ci wala i ndewo Diofior ndewo Diofior magar ne mam musu kutu ndewo musu i mboju meke o kor kuba <laughs> Pape Ngane Sossokh Ngagne Sène mi-temps ah. aca abir sifle waat na aca deuxième mi aca Ngagne Sène Pape Ngane Sossokh ñu ngi ci deuxième baaxoon Ngagne Sène jël na benn avertissement waaye Pape Ngane Sossokh amagul ndaka de eh Ngagne Sène ak Papa Ngane Ngagne Sène na tànku Papa Ngane lu muy def nii Papa Ngane daa mu ne tànk nag Papa Ngane Ngagne Sène Ngagne Sène Papa Ngane Papa Ngane Ngagne Sène eh, eh Papa Ngane nga jël avertissement aca soo soo del jël avertissement aca bisimilawaat na Papa Ngane Sossokh Ngagne Sène Papa Ngane dina tànku Ngagne Sène Papa Ngane eh Ngagne Sène génn na si Papa Ngane Sossokh Ngagne Sène Sossokh lu muy def nii Sossokh Ngagne Sène Sossokh Ngagne Sène Ngagne Sène a ngi koy Aji Sanga lu muy def nii Ngagne Sène daan